bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin euh, gannaaw ñu ngi nuyu ñëpp di tàmbali suñu nuyu si xalif général de Mouride sëñ Muntaxa euh, ñu yeesal suñu nuyoo si sëriñ Cheikh Saliou suñu kilifa suñu sëriñ di sant sëñ Saliou Mbàkke bu baax a baax a baax baax chaque année dëgg la dinañ ñëw ngóob wante yii moom bii moom ñii ñoom ñoo ko moom ndongo yi ñoo ko moom parce que Serigne Cheikh dafa leen tabaxal benn jumaa euh, te nee nañu euh, démb comme noo ko gisee ñoom ñëpp dañoo sol sol sol bu rafet ne daal ñun jëwrin yi ñu ne seen bés la euh, soo gisee mooy tàmm di wu ñëw di waxtaan ak ñoom c'est que ñun ñëpp ay ndong daara lañu te dafa am tey ñu ñu ñu mag rek gisoo am na benn am na ku toog sa gannaaw nii am na keneen mais ñun ñëpp ay ndoogu daaru ni te dañuy ñaan yàlla cest diir dire xam-xam ñoom bi ñu am fii ñu fi jëlee ak li ñu fi sëriñ bi eh, jàngal ak sëriñ bi lu mu leen tàmmal euh, muy muy muy muy muy muy continuer euh, gone yi nag ñun day xam nga rek suñu sëriñ ba sang ba moom rek la xam. jàngal gone yi alxuraan jàngal leen sol leen ay jikko yu yu rafet te ñii nag man ñuy ñooy sama xarit su ma ñëwee fii damay kontaan di leen gis borom ñaari montre yi borom borom kii xam nga di ngay gis façon bu nekk. façon ba ñoom ñëpp daal ko si gis daal am na lu si sëñ bi def si ñoom te ñun cofeel boobu la ñu am si ñoom moo tax toujours damay ñëw toog waxtaan ak ñoom seet seen bébët mais ñoom nag. seen sëñ Xalil moom toujours dañuy jokkoo di xam si lu ñu nekk ndax wante manqué ñu dara parce que moom soo gisee yeesalal nañ leen seen seen seen seen daara bi bu baax baax a baax si digalu sëñ Cheikh Saliou Mbacké nga xam ne fonk parce que sëñ sëñ dafa fonk dafa fonk daara bi parce que euh, sëñ Saliou si boppam dafa fonkoon daara bi moo tax ñun ñu fonk ñun mi nga xam ne ay jëwriñ lañ fi ñu ñu fonk jaara loolu moom xam nga yenn waxu waxu biir néeg ak waxu ron lal doo ko ko wax doo ko wax si ku la tàllal micro mais gën a war nañoo xam ne fii moom place bi euh, sëñ Touba euh, suñu kilifa bi moom moo ko tànnal boppam si tànnal ko boppam euh, si si jox ndigal sëriñ Issa Diène suñu mënee soo remonté histoire bi ba xam lu tax tey ñu toog fi gone yi toog fi ñëpp toog fi sëñ Cheikh fonk fonk fonk euh, daara bi nga xam ne euh, dafa am histoire. Mm-hmm. Mm-hmm. xanaa di ko santati rek. sëñ di santati sëñ Cheikh Saliou di ko santati di ko sant ki di dolli sant sëñ Cheikh Saliou euh, ñun moom taalibe yi dañ dañu am mbégte si sëñ Cheikh Saliou. soo toogee ak moom ngay waxtaan ak moom lu nekk la xam lu nekk la xam wante rawatina euh, yëfu diine waxee nag ak bëgg nag xale yi euh, jumaa ji te ñun ñu waxoon ko ne ah xam naa ne daal seen bésu xale yi la euh, mu kontaan si lool mu kontaan si lool jox ñu ndigal fii fii sax la fanaan ñun mi nga xam ne Euh, ànd ak dongo yi mais kontaan nañ vraiment parce que li lim ñu sant rek moom te ñu yegg si rek ñu ànd ak moom li may li may tàmm di wax ñeneen ñi rek euh, sëñ Cheikh euh, dafa doon liggéey bu rëy mais moom TGV la TGV bi maanaam day jëkki ralentir soo yéegee rek nga ànd ak moom dem su mais moom day continuer liggéeyu sëñ Saliou rek moo tax ñuy ànd ak moom am ànd bégte liggéey ak moom ak sama yeneen sama yeneen jëwriñ yi yi nga xam ne euh, euh, da ñëpp a ngi si jàpp ñëpp ngi si jàpp. Mm-hmm. jërëjëf ginnaaw julli démb nga. Mm-hmm. liggéey bi. Mm-hmm. woote bi defoon na ne mi démb la ñu waaye ñëpp wuyu si waat nañ ci liggéey bi. waaw ñu ngi sant ñëpp nag sant yéen ñii journaliste yi nga xam ne euh, ñëw ngeen teew mbir bi man te sant tamit taalibe yi ñëw barkeelu si liggéey bi soo gisee dañuy oote sëñ bi en fait dafa bëgg yaatal barkeel bi ñun rek mënoon nañ ko def. wante sëñ sëñ Cheikh si tàmbali sëñ sëñ Saliou toujours dañuy dañuy namm yeneen jullit yi ñëw barkeelu si liggéey bi euh, def comme ñun moo tax ñu see sant te <clears throat> euh, luñ siy gis rek mooy ñun yokk rek yokkute yokk ak yokkute lañ si gis di see sant sëñ bi.